sa barab di ko ñaanal yàlla yàlla may ko tawfiix ñi ngi tatagal mboolem gan yi nga xam ne teew nañ fi pour ñu baña a guddal rek microphone bi dañ koy daal di toxo rek ci xalifatu saaxibul fayda Mawlana Cheikh Mouhamed El Mahi Ibrahim Niass mu defal ñu taniya bismillah in qabliha tibta fi zilaali wa fi مستودع حيث يخسف الورق ثم هبط البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل مطهر تركه السفينة وقد أجم نصرا وآله الورق وردت نار الخليم كتما تجول فيها ولست تفترق تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى لهم بلا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من حين فعلها تحتها النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل رشاد نخترق اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح عندك والمادح أن تعظم حظنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل رشاد آمين يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق أيروه مخلوق ثناك بعدما أثنى على الخلاق اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والعدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم متى يبدو في الدجيل البهيم جبينه يلوك مثل مصباح النجر المتوكد فمن, فمن كان أولا لا يكون كأحمد نظاما بحق أو نكارا لملحد أغر عليه بنبوة خاتم من الله برهان يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن وشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد تخدي به الناقة لباء معتجرا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 الهادي الذي عليه جبريل هبط محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر allahuma salli ala man faatihiyatuhu bi badii ijaadi baraatul istiqlaal wa man xaatimiyatuhu baraatul muxtami wal kamaal allahuma salli wa sallim ala bahri anwaarika wa madani asraarika wa lisaani hujjatika wa aruusi malakatika wa imaami xadaratika wa tiraasi mulkika wa xazaaini rahmatika wa tariqi shariatika almutaladini bi tawxidika insaani ayni alwujud wa sababi fi kulli mawjud ayni ayaani xalqika المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى بتوام وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعن والدينا وعن أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين لي سادة من عزهم أقدامهم فوق الجبال إنما كن من فري بحبهم عز وجاه فبجاههم وبعزهم طيب لنا عيش الحياة واختم لنا بالخير يا من لا لنا رب سوى ثانية ربيعي بمرحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغض يا محمد ثانية ربيعي بمرحتي شفيعي بالمنطق البديعي تهنئة ربيعي بمرحتي شفيعي بالمنطق البديع أبغي بها بشهر المولد شهر العلا والسدد شهر النبي أحمد شهر ربيع الأول تهنئة ربيعي بمرحتي شفيعي بالمنطق البديع أبغي بها شبه الربيع إذ كان كالربيع للأرض والشفيع بكل خاطب معضل يا ربيع بمدحه الشفيع بالمنطق البديع أبغي بها محمد بشهر الفرح شهر ذهاب الترف وفخرنا والمرح شهر النبي الأفضل يا ربيع بمدحه الفلاح والسرور سر به ساد دهور مرشح بين الشهور متوج مكلل تهدئة بمن هدي صدري شهر الفاتح إغلاق كون الفاتح من خص بالفواتح وحذفت من الملل شهر النبي القاسم وفاتح وخاتم واخر واول تهنئه وليعي لمن خاتم صديعي المحتفل بديعي اهل بها اهلا بشهر الناصر بالحق الشهر الامري بالعرف شهر الظاهر بكل واصف اكمل بمنحتي سبيعي منتقل بديعي بها أهلا بالشهر الهادي لمنهج الرشاد وقائد أحادي إلى الطريق الأمثل تهنئة

جوابه في الخطة من ربه سل تعطى واشفع لدينا تقبل تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي بمنطق البديع أبغب يا مملي مصطفى صفة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك أو مرسل تهنئة ربيعي

به خيره عند انقضاء الأجل كم يبدو ربيعا لمدحتي الشفيع بمنطق البديع أبقي بها محمد الشهر الذي ما ساقط ومن له الحسن فقط عليه جبريل هبط بكل نور معتلي يا ربيع بمدحتي الشفيع فيه ويومه الأغر وطيب ذلك سحر ونرفق الجليل بمنطق الشريف بمنطق البديع أفضل يا محمد لكل ما ظهر من خالق يعي الذكر به كرفع البصر إلى مقامه العلي بمنطق شبيه بمنطق البديع أبغي بها محمد رأته من عجاب أمينة حين نصب سبابة ثم اقترب بسجدة المبتهلين لم يتعرف لما تحتي السبيل بمنطق البديع أخذ بها مؤملي للزهر كما ترى القصر فيه وحل الكسر بالصنم المجدل يا ربيعي قد طفى من خجلي أن يدور بي بمدحة شبيه بمنطق البديع أقل بها محمد في نكدي لرميها برصدي وعزلها عن مقعدي من أجل خير رسلي تهلئة ربيعي بمدحة شبيه بمنطق البديع يا محمد شيطاني جرى عظيم شاني من اوضح البرهان يعظم ما بكتلي تهنيت ربي بمدحتي السبيعي بمنطق البديع اقلب يا محمد هذا الافضال بأفضل الرجال في أفضل الليالي بالبلد المفضل تاني ربي بمدحتي يا شبيب بمنطق البديع أبغي بها محمد لن بيوم عيدي ما مثله من عيدي قد حل في المولود في محل زحلي تاني ربي بمدحتي خبيب بمنطق البديع أبغي بها محمدي أبيع الولادة وما أتاه السادة من وفق ما أراد إلهه في الأزل أن ربي بمدحتي خبيب بمنطق محمدا خير اسمي رمزا لمعنى الاسم من جده المبجل تنادى بمنطق شبيعي بمنطق الفدي ابغي بها مؤملي من سمي محمدا خير اسمي رمزا لمعنى الاسم من جده وكان ذا يقينا من الكريم المفضل لم يبتر بمدحتي الشبيه بمنطق البديع أبغي بها مؤملي بيوم اثنين مولد ثان اثنين مبعث سر الكون مقدمه الموجل أن يدار بي بمدحتي محمد بيوم صار عشرين واستنار لمن حوى الفخر وغفرة من منزل دانية ربي بمدحتي شفيعي بمنطق البديع أبغي بها مؤملي بشهر النيسان مولد خير إنسان قدوة أهل الإحسان والكامل المكمل أن يتعربي بمدحة الشفيع بمنطق البديع أبغي بها محمد قد تمت لآلي في عدة الليالي بزينة المعالي كالجوهر المفصل ثانية ربي بمدحة شفي بمنطق أبغي بها محمد أغنية الربيع بمرحة الشفيع بالمنطق البديع أبغي بها محمد أغنية الربيع بمدحة الشفيع بمنطق البديع أبغي بها محمد أبغي بها الجمع به يوما ونيل قربه وفضل حب ربه بمدحتي شفيعي بمنطق البديع أبغي بها مملي بالحسنى والجمال في الحسنى لدى المقر الأسنى مع الرفيق الأفضل تانية ربي بمدحتي الشفيع بمنطق البديع أبغي بها مملي لنا وليا وناصرا حفيا لا نختشي غويا بجاه عبدك العلي ثاني الدربي بمدحتي شفي بمنطق الابدي ابكي بها محمد صلى الله وسلم الاله عليه افضل الصلاه ما دام كون الاله من ابد لازله ثاني الدربي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

ومقداره حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله الحمد لله السلام عليكم مبوكي سرين بن الحمد لله السلام عليكم na ñu ngi ndokkeel suñu bopp di ndokkeel mbooloom jullit yépp bési teranga bii nga xam ci bési teranga bii nga xam ne. ci la borom teranga juddu. nga xam ne ku xamati teranga rek. foofa nga bàyyeekoo. mooy mooy cosaani teranga. ndax tànga. li ci gën a màgg. mooy nit ku teddee xam-xam. te xam-xam. njëkk yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. su fekkee amoon na itam. su fekkee ne amoon na itam. dafa tëju woon ci ay ruq rek. dafa tëju woon ci ay ruq rek. Muhammad moo ñu tasaare xam-xam ku nekk mag ak jigéen ak góor ñëpp. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñëw tasaare xam-xam gone mag jigéen góor ñëpp jot ko. ñëpp jot xam-xam. nekk ci ay kàngam yoo xam nag di ay kàngam yoo xam ne. dara réeru leen ci xam-xam. xam xami kaw xam-xami suuf xam-xami géej yi. xam-xami. ndundat lépp. boo demee. xam-xam la yoo xam ne. yàlla Muhammad ci barkeb yonent yàlla Muhammad sallallahu te saaroo nag ci mboole mbindeef yi ñi ko gëm ak ñi ko gëmut yépp yonent rek mooy jum bi nga xam ne ci la ci la ñépp di gindeekoo bokk na ci teraanga. ci boppam nit yëg ci boppam. nit ci boppam. ne moom nit ki am na liberté. am na kattani tànn. am na kattani tànn. am na kattani bàyyi. am na kattani bàyyi. am na kattani bëgg. am na kattani bëgg. am na kattani nangu. am na kattani nangu. yooyu yëpp mu ngi booloo ci doomu aadama bi yàlla moo ko ko may waaye ku ñu ubbi buntu yooyu ba nga xam maqaama yooyu yëpp barkeb yonent yàlla muhammad moo la ko may bu ñu gindee koo ba xam diggante nit ki ak nit kii di moroomam li war ci seen diggante ci teraanga. li war ci seen diggante ci teraanga. mënta nekk. nekk. jógee ci xam-xamu nit kese. jógee ci xam-xami kese. jógee ci xam-xamu nit kese. ci xam xam-xam yàlla mi bind nit rek. xam li nit ki soxla. xam li nit ki bëgg. foofa rek la nit ki di xamee moromu nitam. jox ko gëddam jox ko gëddam jox ko cëram. fonk ko. comme ni ko yonent bi waxee. nga bëgg sa morom comme ni nga bëggee sa bopp. nga bëgg sa morom comme yow ni nga bëggee sa bopp. loolu yépp teraangay ki juddu gii ñuy feetu. ci moom lañ ko xamee sallallahu alayhi wa ci teraangaam lay am ci teraangaam lay amee. ci teraangaam lay amee. yàlla ubbil ñu. buntu xam-xam yu bëree bëri. nit ñi jàng leen. ne nit ñi jàng leen. ndax yàlla moo leen di xamal lu ngeen xamutoon. ndax yàlla moo allama al insana maa lam yaalam yàlla xamal na doomu aadama loo xam ne xamu ko woon. yàlla xamal na doomu aadama loo xam ne xamut ko woon. ba tey doomu aadama ngi xam. ba tey jii doomu aadama ngi xam-xam ngeen. ba léegi doomu aadama ngi am xam-xam. ba léegi doomu aadama ngi am xam-xam. ba léegi doomu aadama ngi génne ci ay gëstoom loo xam ne. ba léegi doomu aadama ngi génne ci ay gëstoom loo xam ne. ci kaw xam-xam la sukkandiku. ci kaw xam-xam. la sukkandeku. nekk ay kéemtaan yoo xam ne waxtu wu génnee rek. nekk nag di ay kéemtaan yoo xam ne waxtu wu génnee rek. kii nga xam ne nga dëgg-dëgg jaam bii yàllaa ko teral. yàllaa ko teralee. yàllaa ko teralee. xam ne kenn demut ko. xam-xam nag kenn demut ba jeexal ko. ku nekk rek am yow am na fu sa yem. moo tax yàlla mu ne. moo tax yàlla mu ne. képp koo xam ne xam na rek am na a xam. képp koo xam ne xam na rek na ko leer ne am na ku ko gën a xam. te xam-xam. du fii la em du fii la em. du fii la em te du fii it la em. du lii rek ngay gëstu bàyyi lii xam-xam yépp ngay gëstu li ko dalee ci nit ak taxawaayam ak li composé nit yépp lu mu sew sew boo demee xam-xamam fay dugg di ko gëstu di ci génne ay xam yoo xam ne ñeneen dalañ ko jëriñoo nit kooku nag am gannaaw yonent yàlla Muhammad la am sallallahu alayhi wa sallam kon teraangay yonent ci doomu aadama amut dayoo duñu wax ne nag. yonente ko moom. yonente ko moom. buntu rek na ko waxal. waaye yàllaa ko ubbil buntu rek na ko waxal moom yonente bi. ba pare xamal ko li mu war wax. ko li mu war a wax. mu wax lépp. ba àgg ci doomu aadama. li aju ci doomu aadama yépp mu dajale ko. wàcce ko muy benn téere ci moom. wàccee ko muy benn téere ci moom. téere boo xam ne. junney at ak nangam a ngi nangam nii téere baa ngi fi. junney at ak juróomi téeméeri at téere baa ngi fi. nekkewu fi nag. te nekkewu fi nag lu may. nekkewu fi jàmm. nekkewu ay noon. ay bëccëg. ñu ngi ci téere bi di wax. ñii di wedd téere bi. ñii di sukkandiku ay théorie science. ñii di ay théorie science. wax leen fu ngeen jëlee alquran ji. waaye nag la arab ba waxoon rek. yéen ñii yéen a ngi mel ni béy wuy mbëkk montagne ne daf koy daane. béjjén ya mooy dem waaye montagne ba moom. béjjén yaay dem mbaa loosoo damm waaye montagne ba moom mu nga fa rek. ndax alxuraan. wax yàlla mi ñu bind la. li mu wax yépp mu ngi ci doomu aadama. li mu wax yépp mu ngi ci jikkoom moom yàlla. lim ci wax yépp ak xéewal yi nga xam. mooy xéewal yi nga xam ne li mu wax yépp. li mu wax yépp. xéewal yi nga xam ne. mooy xéewal yi nga xam ne. yàlla bind na ko pour doomu aadama mu ñeexal ko. ci ci yonent. ci yonent. ci lañ xamee. laay ji wax ne. laqad karramnaa banii aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahri wa razaqnaahum min at-tayyibaati wa faddalnaahum ala kasiirin mimman xalaqnaa tafdiilan man yàlla maa bind doomu aadama maa ko teral man yàlla maa bind doomu aadama bi te maa ko teral man yàlla maa ko maa ko waral man yàlla maa waral doomu aadama bi man yàlla man yàlla lu dut yàlla rek lu lu yàlla bind rek lu dut lu yàlla bind rek lépp lu yàlla bind lépp lu yàlla bind doomu aadama tax mu bind ko xam ngeen ndax mu nekk njëriñam asamaan sii ngeen di gis suuf sii ñu taawu géej géej te ñun ñépp xam nañ loola lim ñuy jëriñ yàlla moo tax yàlla mu ne man maa leen ko bindal tàggatal leen ko xam-xam yoo xam lool. muy buntu gëstu xam-xam yoo xam ne yaatu na lool. baykat yi am nañ ci baykat yi am nañ seen wàll. ñiy xalaat ci kaw asamaan ak biddiw yi am nañ ci seen wàll. ñiy xalaat ci kaw asamaan seeg yi am nañ ci seen wàll. ñiy xalaat ci géej ni nekk ni géej. ñiy xalaat ci géej géej jën yeeg nekk ni géej. am nañ xam nañ ci seen wàll. ñu ngi am nañ ci seen wàll ñu ngi seet. waaye dañuy seet seet rek ba doyal. waaye dañuy seet a ba doyal. dayoo xam àgg naa ci xam-xam ne nii la. waaye dayoog àgg naa ci xam ne nii la. loolu sëriñ bi na jafe na lool. gisaguñ ko te yaakaarut ne danañ ko gis. xanaa. bés buñ demee àllaaxira yàlla yéex. ba jàkkaarloog yëf yi. ba jàkkaarloog yëf yi. su boobaa danañ xam-xam-xam bu leer. su boobaa danañ xam xam bu wér. su boobaa danañ am xam-xam bu dëggu. yal nañu ci yàlla àggale jàmm. yaa rabbi. ñu fekk fa jàmm. gàmmu sëriñ bi nañu ngi baamu lu ngir biddaa gàmmu duhug biddaa gàmmu du ku nekk am nga lu la neex ci sa xol ku nekk nit ku nekk am na lu mu nit ku nekk am na lu koy kontaanloo mbooloo mu nekk am na lu muy feetu feetu. lu ñuy feetu. ñun tànn nañ. ñun day tànn nañ. bu ñu bëggee feetu. yonent bi la ñuy feetoo. sallallahu alayhi wa ndax lan. ndax mu wax ne yëpp defal nañu ko. yàlla defal ñu ko ndax moom loolu xam ngeen ne jar na feetu amee te ci amee. mbooloo yu daje. te mbëggeel rek moo jaar moo jaar ci seen diggante. jàmm rek a jaar ci seen diggante. oote jëm ci jàmm rek moo jaar seen diggante. oote jëm ci jàmm rek moo ay mbokk yu gëj a daje di saafuwante. xarit yu gëj a gisante daje. ay xarit yu gëj a gisee daje. ñun ñëpp ñu waxante asalaamaaleykum. ñun ñëpp ñu waxante asalaamaaleykum. waaye dégloo leen. loolu rek. loolu rek. jar na. ñuy daje di gàmmu. ndax danañ ci xamee loo xam ne. bu taxutoon ak gàmmu. ko sëriñ bi ne gàmmu gi gis na ay nit ñoo xam ne. nit dëgg-dëgg sëriñ bi nag xamutoon ne nit ñu kawee noonu. nit ñu amee xam-xam noonu. nit ñu dogoo noonu. ñëpp ñu pare pour ñëw Sénégal. dimbalee nu ñu yëkkatee ci coono. pour nu ñu yëkkatee Sénégal ci coono. nu ñu génnee Sénégal ci ay jafe-jafe. ñii ngi defar ay ngi defar ay banque ñii yaa ngi defar ay société ñii yaa ngi defar leneen ak leneen. loolu yëpp pour. développé seen réew. ba mu àgg ci dayo yi nga xam ne. ba mu àgg ci dayo yi foofa la war a àgg. ndax nit ñu koy defar day am nañ fi. nit a koy defar am nañ fi. kon xam-xam yaa ngi fi. borom alal yaa ngi fi. nit ñu kawe ñaa ngi fi ñu bëgg ñu bëgg ñu baax ñi ahdi wa aminil wahyi mu ngi noonu egsi na ci digg tant bi tabarkalla macha allah mu ngi noonu ci biir oto bi ñu koy xaarandi incha ñuy xaarandi ba xam tabarkalla macha allah day wàcci walla waaye daal ñu ngi koy ñaanal wér. sëriñ bi nag mu ngi nii benn tegtal ngi nii feeñ. ne la kilifa gu mag a ngi nii doxee ko Nigéria li ko mën a boole mu toog ak ñun guddi gàmmu giir rek moo ñu mën a boole ñu toog ak moom tey boo gisee nit ñu kawe nga xam ne boo leen bëggee gis da nga xam ne da nga sonn lool bala nga leen a gis kenn ci ñoom moom mu ngi nii tey toog fii ci suñ biir ñu xam ñu xam li yonent jëriñ mooy mbokkale ñu ñun ñëpp ñu nekk di benn ñu nekk di ay mbokk rek. ñu nekk di ay mbokk. yu bëree bëri. di ay mbokk yu bëree bëri. mbooloo mi daje fii. mbooloo mi daje fii. sëriñ bi na nationalité bu nekk mu ngi fii. jógee ko fu nekk nag. ñëw Sénégal. ndax am nañ. dégg-dégg boo xam ne. bu ñëwee Sénégal ut si yonent yàlla ko may moom kon am nañ ci gàmm ngëneel yooyu yëpp xam nañ ci gàmmu am nañ ci gàmmu nañ ci gàmmu mbaax yooyu yëpp loolu yëpp bon jar na ñu dajee ci gàmmu ngir xamante Sénégal gi yàlla teral na ko ak ay doom ba yàlla teralee toxal ci jaami yàlla yi rek. yëg ne teraanga jooju dañ koy toxal ci jaami yàlla yi rek. parce que ñoo tax yàlla may leen ko. Cheikh Ibrahim kenn la ci ñoom. gis ngeen gis ngeen ko gis ngeen góor gu màgg googu gis ngeen ko it lim def. gis ngeen àddina bi fi daje yépp tey. ba mel ni. Sénégal réewu pèlerinage la fu nit ñiy dem di uti ñaan yàlla boole na ci Sénégal nit ñi di fi ñëw di ut si ay ñaan loolu mooy Sénégal yàlla dénk na ko ay doomam ngir ñu sàmm ko yal na leen yàlla may xereñte guñ ko mën a sàmmee guñ ko mën a sàmmee yal na yàlla may leen xam-xam bu ubbeeku bu yaatu yaara bi min yal na yàlla may leen fit min dara du leen tiital senegal gii réew mu kawe yàlla bëgg na ko ci guddi gii dolli ci seede. ak yeneen guddi yi xew. ak yeneen guddi yi xew. yëpp yëpp. luñ koy doyee. yëpp ngir yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mooy sangi mbindeef yi. ku bëgg. ci yàlla. ci moom ngay dem. mag ñi fi jébbal nañ seen yëpp suñ mag ñi jaar nañ fi. jébbal nañ seen lépp yonent liggéeyal liggéeyal ko ci xeetu Sénégal ci xeeti ba nga xam ne tax na li français yi bëggoon def sénégalais yi li français yi bëggoon a def sénégalais yi mënuñu ko mënuñu ko ndax doole góor ñu ndaw ñooñu ñuy fekkeet bëriwul sax juróomi góor rekk lañ. waaye gis ngeen seen liggéey fi mu àggale Sénégal. loolu yëpp. loolu koy am ci gàmmu gi. ba tax. moo tax. sëriñ bi ne mu leen di ñaan yéen ñii di diriger réew mi. pouvoir ak opposition yi. yéen ñëpp yéen a xem. bi di déglu. ndax yéen la population bi di déglu. population bu ndaw la buy màgg. population bu màgg. amee sa ndaw muy màgg nag foog nga ànd ak moom ci xerañte. boo amee sa ndaw muy màgg nag al foog nga ànd moom ci xerañte. teg ci yoon woo xam ne mooy yoon wu jub pour moom. ngir mën koo teg ci yoon woo xam ne mooy yoon wu jub pour moom. te bañ a tarxiis di jaar foo xam ne. te bañ a tarxiis di jaar foo xam ne. mën naa jur ay fitna. mën naa jur ay fitna ëllëg. yal nañu ci yàlla musal. yal na yàlla musal Sénégal ci fitna. yal na yàlla musal Sénégal ci fitna. yal na yàlla musal Sénégal ci balaa. yal na yàlla musal Sénégal ci balaa yaara bi. yàlla xamal Sénégal. yal na yàlla xamal senegal Sénégal. doomi senegal politique bu Sénégal. ñi jiite politique Sénégal. ñi jiite politique ci Sénégal. ñi jiite diine ci Sénégal. ñi jiit diine ci Sénégal. ñi jiite yeneen yëpp. ñi yal na yàlla defal leen tawfiq. liggéey ñu liggéey liggéey boo xam ne. niroo na ak Sénégal. niroo na ak Sénégal. niroo na ak Sénégal. niroo na bu yàggut dañ maa oo Màkka. sëriñ ko oo mu dem uy ji leen. ba mu demee. ne ba mu ngi ànd doom. ay doomam. ñu oo ñu bés bi ñu leen ci bés bi nga xam ne ca lañ war a daje kàngaam yi borom xam yëpp borom xam yu bëree ngi toog. bo kàngaam yi borom xam-xam yu bëree ngi toog. bañ ñëwee. bañ ñëwee. am kenn ci sama doom doomi sëriñ bi. ñu fay daf may jóg ne dafay présenté sëriñ bi ñi leen invité woon. ñu ne ko ñun kii nga ñuy présenté ñoo la ko gën a xam toogal. ba mu ko xooyee. ko xooyee li tax ñu woo ko. mooy place yi nga xam ne bàyyi moo amoon bii nga xam ne baayam moo ko amee woon ci ligue mondiale islamique. te ba mu demee ba tey. place baa ngi fi vide. kenn nekkut ci. ñu bëri ut nañ ko sax. ñu bëri nañ ko sax. waaye place bi dafay nekk rek. waaye place bi dafay nekk rek. te yëg nañ. te yëg nañ. na ñàkk nekk place nit ci place bi. na ñàkk nekk nit ci place bii. indil nañu vide bu mag a mag a mag. fa nga xam ne fi liggéey ligue mondial war a àgg ci Afrique sax àgg. fa nga xam ne. fi liggéey mondial war a àgg ci Afrique sax àggut fa. moo tax dañ laa woo. ne sëriñ bi sa chaise baa ngi nii toogal wuutu ko ci. ñu lay ñaan. boo demee. li mun ci samp. li mun ci samp. ci samp. li nga taxawal. ñu ngi ci sa bon nag loolu. la Sénégal kawe. la senegal kawe. kon Sénégal googu buñ ko yàq. kon googu. sëriñ bi mu ne buñ ko yàq. Sénégal googu sëriñ bi mu ne buñ ko lakk. ci ay xuloo yoo xam ne jarut ko. ndax boo ko lakkee. ndax boo réew mii. ana fooy dëkkati yow. ana yow foo jëm. téye suñu réew nañ nañ ko garder. nañu garder suñu réew mi ak xereñte. nañ ko garder nañu garder suñu réew mi ak xam-xam. ko garder. nañu ko garder. ak bëggante. ak bëggante. nañu ko garder. nañu suñu réew mi. bañ a jamante ci ay wax. di sànni xante ay wax yoo xam ne. dafay delloo nit gannaaw rek waaye du ko avancé loo. ndax ay mer rek lay andi. mer bu fayu rek moo ci topp. buñ fi nekkee rek di fayu xante ci suñ biir ñun kese. xam ne defaluñ Sénégal dara. muy pouvoir muy opposition yi. sëriñ bi mu ne seetaat ak xereñ ni ngeen di liggéeyee. ndax ci moment bii ñu toll. moment bu bu yomb de. Euh, ndax sëriñ bi ne ni mu ko waxee ministre bi démb. évolution sociale. évolution sociale la. dafay ànd ak lu nekk. waaye nag. lu nekk nag. mënta tëb doomu aadama. kon sëriñ bi na nañ bàyyi xel ñi ñu élif. ñi élif nañ bàyyi xel ci ñi topp yi nga xam ne ñoom ñoo leen élif. ñi élif itam. ñii ut ne dañoo bëgg a dañoo bëgg a ñoom itam nañ itamit nañ bàyyi seen xel. ñun ñu nekk ci jàmm. ba ñun ñëpp ñu nekk ci jàmm. yal na yàlla dimbale leen yaara bi. yal na yàlla dimbale Sénégal. jigéen nag ndaw. góor jigéen mag ndaw. ñiy jàng ñi nekk ci armée ci ñi nekk ci administration beeg. ak ñi dikkagut ñëpp yal na leen yàlla may jàmm. ndax ñu mën a liggéey liggéey bu dal. pour avenir bii di ñëw ci suñ kanam. suñ doom suñu sët nekkuñu fi. waaye waruñoo tas Sénégal bu ñëwee ëllëg duñ fi fekk dara. ñu commencé ti nag ñoom ñi mujjee ñëw ci zéro. yal nañu ci yàlla musal. sëriñ bi ne ñu ngi leen di ndokkeel beneen yoon. di leen wax marhaban bikum. yal na yàlla nangu suñ tànk yu tedd yi ñu dikkee fii ci barab bi. ci guddigu tedd gii. ci guddigu tedd gii. ci barab bii nga xam ne. nekk jaar nit ku tedd ku nekk jaar na fi. te dara taxut la fee jaar. lu dut ut teraanga rek. yàlla ñu ko yàlla may ñun ñëpp. sëriñ bi ne ñu ngi ñaanal suñ gouvernement. sëriñ bi ne mu ngi ñaanal président Macky Sall. na ko yàlla wattu. sëriñ bi ne mu ngi ñaanal opposition bi yal na yàlla wattu leen bañ leen a tarxisloo utal li nga bëgg a ut kenn aayewu la ko waaye nag yonent ne na booy ut ut ko ci anami rafetal boo rafetalee boo agsee lépp dafay rafet yal nañu yàlla xiir ci loolu daayiman yal nañu yàlla xiir ci loolu yal nañu yàlla dimbale ñu sampu suñ Sénégal gi bu baax sëriñ bi ne mu ngi ci guddi gi xalif de Tidiane ñu ngi ndokkeel xalif général de Mouride. ñu ngi ndokkeel mboolem xulafaaw yi. ci bés bi ndax ñoom itamit boo boo demee ñu ngay def li ñu war a def ci bés bi ci feeñal mbëggeelab yonent sallallahu alayhi wa sallam ci feeñal màggaay ak yonent bi yal nañu ko yàlla nangul yaa rabbi wàccee ci ñun barakatu rasulullahi bismillah uxayi wa uhanni ixwati alqaadimina min mauritania wa gayriha min albilad alarabia li yashtariku معنا في هذه الليالي الكريمة في نفوسنا الليالي العظيمة في نفوسنا الليالي التي نحن جميعا نحبها لأجل من ولد في هذه الليلة المباركة وهي وهو محمد صلى الله عليه وسلم نبي الحضارة نبي الإنسانية العظيمة نبي المعرفة نبي العلم نبي الأخلاق العالية نبي السلوك الرفيع نبي الرحمة لعباد الله تبارك وتعالى kama qaala wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin ana muhdatun min indillahi ilaykum fa nahnu bi hadihi almunasaba najtamiu ixtifalan wa taadiman wa tawqiran li hada annabiyi muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ونتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن ينزل فينا بركات هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا الثبات ala diinihi imaanan wa amalan wa ilman wa taqwan wa ijtinaaban li kulli ma yashubu xayaata al insaani al muslimi as-saaliki ila allahi tabaraka wa taala ijtamaana kama kunna najtamiu fi al azmunati al maadiya احتفالا بهذه الليلة وتعظيما لصاحب هذه الليلة وحبا له وتظاهرا بأننا نحن متعلقون برسول الله ولن نتنازل عن محبة رسول الله ولن نتخلف عن الاحتفاء والاحتفال به صلى الله عليه وسلم lima jaalahu llahu tabaraka wa taala sababan min karamatihi wusul li tawsilihi ilayna fa huwa alladi awsalana alquran alkarim bima fi alquran min alayat alazimati والاخلاق الكريمه والانسانيه الرفيعه التي حقا هو مطلب القرآن في كل البشر ومطلب الرجال العظام أيضا في كل البشر حتى يستطيعوا أن يقيموا عدلا في الأرض وحتى يستطيعوا أن يكونوا ناسا قادرين على قادرين ala tasadduri fi daawati ila allahi tabaraka wa taala fi jamii axwaalihim wa zurufihim kama faalat kama faala abauna wa kama nuxaawilu an nafal wa in lam nastati aqdamahum walakinna ala darbi nasiru نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ويتقبل منكم هذا العمل الذي لا نطلب فيه إلا رضا الله تبارك وتعالى الذي أمرنا بالصلاة على رسول الله وكل هذه الأعمال ليست إلا صورة من صور الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقنا الله ووفقكم جميعا إلى ما فيه رضاه ووفقنا جميعا إلى عمل الخير وخير العمل إنقاذا لبلدنا وإنقاذا لدولة السنغال من التحدر حقا فيما تحدرت فيه جميع البلاد التي خربوا بلادهم من أجل تفاهات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى و ونقدم لكم ضيفا كريما عزيزا جاء علينا nu tudd nu tudd ah sa Xaasim Shakiba ah ضيف كريم اسمه قاسم شكيبة جاء أيضا ليحتفل معنا ليلتنا هذه ونحن مسرورون ونستقبله بكل قلوبنا مرحبا بك bayna ahlika wa qawmika wa bayna ahbabika wa ahbabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nasalu allaha tabaraka wa taala an yaktuba laka alxayra wa yaktub laka saadata wa yaktuba laka tawfiqa fi ma anta bi sadadihi kaana allahu maaka nasiran wa muayidan wa muqawiyan xata tasila ila ma turiduna alwusula ilayhi fadlan min allahi tabaraka wa taala wa nicmatan minhu jazakum allahu xayran xudurakum maana wa shukran kasiran jazilan wa shukran aca ana waa Ibrahima ngeen bàyyi yoon bi ndax baaba mën a wàcc baaba si léegi ñu bàyyi yoon bi pour mu mën a yéeg Ibrahima ngeen gunge baaba ak doxam bi bismillah nag na ko yàlla faj ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu taala anhu ñu ngi tatagal gan fi ñëw yëpp di tatagal Pape Demba Bitèye agsi na léegi moom délégation bi nga xam ne mi ngi ànd ak ñoom ñu ngi leen tatagal kon nag dañuy jox microphone bi sa Tidiane Sané Wal mu sànni ay kàddu présenté الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم